lool xibaar ñu commencé kook Souleymane Diawara di ak sub central Ah, bu Sénégal boo xam ne daan na football fële ca Olympique de Marseille xam ne daanaka tëccante beeg Real Madrid jamono jooja daana def lu am solo moom moomee nag mooy yebbi ay kàddu ah, ci Sadio Mané jafe yi nga xam ni ah, moom la nekk ñaanal ko mu génn ca moom su lay Souleymane Diawara tamit mu tànn footballkat bi nga xam ne ci histoire Sénégal ba mu soqeekoo léegi sippi nag kii di El Hadji Ousseynou Diouf di papay Sadio Mané wala boog di magi Sadio Mané nga xam ni sotti seeg def si la waaye tànn na Sadio Mané mu nekk ki nga xam ni mooy footballkat bi gën a xarañ ci histoire Lat Diop nag jàpp ni moom moomee footballkat la boo xam ne bu teg woon ci temps ak ak ak heure tey defal na Sénégal loo xam ne lu am solo la kon ci gàttal daal tagg na Sadio Mané ba pare tamit Alassane Diouf jox na ko cëram ndax Sénégal euh, benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar moom mii di euh, gaynde national bi nga xam ni euh, yàgg naa rajaxe fële ca France te it rajaxe na équipe nationale bi nga xam ni ca ay jamonoom nga xam ni daana ca def loo xam ni lu am solo loo xam ni kenn mënutu koo weddi Gavi wala boog ki nga xam ni moo nekk Pedri nga xam ne daanaka fi mu toll nii Dembélé jaaxal na ko ci Dembélé mi nga xam ne daanaka mën na koo dénkum réew ndax sutura si nga xam ni am na ko ma ngi koy jaaba jonge di ko tooñ Dembélé nga xam ne suur bi nga xam ne moom la doomam di juddu la ñëpp xam ni war naa am doom mu nekk loo xam ne lu footballkat yi war a bàyyi xel la wala ñeneen ñoo xam ni daanaka duñuy footballkat ñu bàyyi ko xel ndax sutura soo xam ne war nañ koo am ci li nga xam ne mooy seen vie privée yi nga xam ne daanaka démbale euh, diine islam yi nga xam ne moom lay dund loole tamit bari na lu mu ko jàppale ak ki nga xam ne mooy Achraf Hakimi nga fi mu toll nii daanaka ma ngay gondaan ndaat ci euh, mbeddi France yi ndax mbégte moo xam ne am na ko procès boo xam ne daanaka euh, demu ci sax waaye gañe na ko ndax yaayam ji nga xam ne lépp lu mosoon a am ci ay koppar moom la ko dabbar ñi daal di ko koy dénk loole tamit nekk loo xam ni phénomène la bu footballkat yi war a bàyyi xel bu baax a baax jërë ngeen